ñun ñi moom amatuñ amaguñ bagage moom bis bii waaw dañu xëy ñëw ne toog pour bañ bañ di toog gàll ba nit ñi dañu fi fekk dañuy ñëwantal daal mais dañu ñëw fi toog bu ngoon jotee ñu ñibbi. sant yàlla rek sant yàlla rek xam ne xëy na dafa gën si ñun quoi yàlla baax na fii laa yoroon fii laa daan jaayee place laa yoroon rek mais yàlla baax na daal. sant rek sant yàlla bu baax a baax a baax te xam ne maanaam daal suñu borom mi ñu ko joxoon. ñoo ngi rafet njort ci ni ñu joxaat lu ko gën fuuf comme ni ko sëñ Mountakha waxee rek loolu daal moo dalal suñu xel moo tax ñu ñëwaat di góor góor lu fas yéene jaayantewaat rek laxasaayiwaat. sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax ndox moom bu tuuroo daanaka rootiwaat rek moo fi doon rootiwaat waaw dama jënd bagage rek ñëwaat tegaat commencé taqale ndànk-ndànk rek xam nga. di jóge ko daal incha allah. li marché bi métti métti ñëpp d'accord nañ lu suñu borom dogal la ci ab jaam nag li ëpp solo ci moom muy nangu lépp lu yàlla dogal mu nangu ko loolu rek laa gis ni moo tax waaye du la neen. affaire bi moom métti na wax dëgg yàlla ndax boo dee xool marché Ocass bi moom lan am mooy suñu usine mooy suñu géej amuñu fenn fu ñu jëm. furut marché Ocass bi la ñuy xëy di wàcc ci la ñuy daanee tamit suñ doole ndax tey lii dafa metti nga xëy ba wàcc tëj sa place nga dem sa kër même pas ay cinq minutes ñu woo ni la marché baa ngi lakk nga tourné waat nga ñëw avant ngay egsi ci marché bi fekk yow danga nga defar say bagage ba teg ba dem ñibbi rek ñëw fekk marché bi lakk ba jeex xam nga tamit loolu metti na loolu metti na trop ci doomi aadama yëpp man mii di wax ak yow tamit sama place dafa lakk ba jeex tàkk waaye nag dañuy doole sant yàlla te gëm yàlla te xam ni moom moo ñu ko joxoon moom moo ko jëlaat dañuy delloo suñu xel ci yàlla rek te xam ni tamit marchand ambulant yi moom amuñu furut marché bii. marché ñi nga xamoon ñoo doon tilal instant bi nii mën naa ne xaaj bi lakkale wuñ peut-être que am nañu toog fii am nañu lakkale am nañu lakkalewul mais ñi ngi sant yàlla bu baax di masaw tamit ñi nga xamante ni si ñoo toog fii suñuy gaañ lañ suñu boole ñoo ñëpp ñoo for on est ensemble di bu baax a baax mais yàlla baax na xëy na leen ko mayoon dinañ leen ko joxaat incha allah. xam naa dem Dakar jënd bagage ñëw teg waaw mais ñi nga xam ne dama lakkee dëkk si biir marché bi moom dëkk di di jaay di jënd waa si marché bi fi ñu jëndee ñoom mën nañ leen jox bagage ñu ñëw di jaayaat di wees. mais comme ça sama gars yi ak man nii Dakar dinañ jënd bagage Chinois yi xamuñu nuñ ñoo jox bagage ñi moom du teenu ñëw ci marché bi ñii dañuy ñëw pour dañ kumpa ñii ñëw pour jënd ñii ñëw pour dimbali ndax doomu aadama yi yemunu am na ñoo xam ne dañuy ñëw sax leen jënd soxla woon ko dañ koy jënd rek ngir yërëm ñi nekk ci marché bi moo tax ñu koy jënd am ñoo xam ne tamit dañuy jóge fu sori ñëw ba egsi ci marché bi xam ne lakk nañ li leen taxoon a jóg moom faaw nu wër ko buñ ko gisee dinañ jënd li jënti woon bagage bu poussière ak bu poussièreut moom liñ soxla mooy liñ bëgg a jënd nan ko gis rek dinañ jënd dem moom réew mi liggéey amu fi amul benn ah, amul ay société yu fi ne amul ndaw ñu fun jëm ca faaw nu lekk faaw nu naan faaw nu faji soxla léegi bu nu liggéeyut lan war lan lan war a def danoo war a sàcc wala danoo a dem topp mbedd yi wala danoo dugg ci ndox mi même nit ñi deelu ëpp doole ñëpp ci biir ndox mi bu nu amoon métier di fay weer cent mille dugg ci ndox mi di dee ñàkk pexe moo tax nit ñi du dugg ci ndox mi kon nit ñi faaw nu liggéey ak lu mën a am rek dinañ liggéey moom liggéey gi moom force la. man de yaakaaruma fenn koo xam ne dañuy jox xaalis moom ku nekk la nga jotoon a denc si ngay bu fekkee ne denc nga xaalis moom nga mën a génne waat liggéey wala ngay taqale di taqale rek des fois tamit gars yi ñu doon jaay bagage des fois ñu dugal si rëmmaane daal di ñu jox bagage après ñu jaay du ko delloo si. yéen ma rek ma ko taxalewaat si si gars yi waaw taxalewaat ko si gars yi rek dafay ñëw tegaat yàlla baax na yàlla moom yàlla ñoom daal ñoo ngi fii di góorgóorlu di rafet njor ñun moom marché lan am te marché lan xam est-ce que liggéey lan xam xamuñu sàcc xamuñu taxawaale xamuñu dara buñ ñëwee rek xëy ci marché bi lépp luñ fi taqale rek yàlla baax na. Mhm. marché bi kay instant yi moom mooy loolu gis nga ko neexut a jaaye ndax boo fi lalee say bagage yu baax sax day ndabare ndax poussière bi dafa bari mais nag mooy loolu boroom kër mënta xëy toog xam nga il faut nga ñëw jéem a taxale loo yóbbu loo yóbbu kër ga rek looloo tax. li lay jàpp rek xam nga ak li nga jotoon yor avance njaay mi lakk yooyu ngay boole rek dem wutaat ci tuuti bagage teg xam nga jàpp ci yàlla ah. xam na ne réew mi ñun ñëpp xam ne dafa métti ndaw ñi amul lu ñu def te kenn ku ne am nga yitte ami soxla am sa waajur wala taxaw nga war a am soxla yoo war a faj lu métti métti faaw nga xëy fem jéem a liggéey pour débrouiller pour yóbbu loo a am yóbbu pour sa njaboot xam ne am nañ ay dépôt am nañ leneen waaye ñi nga xamante ni comme marchand ambulant ñoo nekk ci kaw tëli bi ñi nga xamante ni ay kanting lan yoroon nga xamante ni amuñu dépôt amuñu lenn lu dul seen i bagage ci foofu lañ koy tëj dem ñibbi kon tey ñooñu bu loolu lakkee rek fekkee ñoo yor seen i kër di yor seen i yaay di yor seen i papa ak seen i njaboot di dundal ñu ko topp seen ginnaaw boobaa ñooñ dañuy jaaxle te duñ am fu ñu jëm te lu ne mën na cee xaj liñ bëgg mooy ñi nga xamante ni am nañ doole te nekk ci dëkk bi tey dégg suñu kàddu ñu ñëw dugal fi seen loxo dimbali marchand ambulant yi te nga xamante ni koo gis ci kaw tali bi rek bu sañoon tey ci bureau lay toog wala mu yori centre wala mu yor ay ay lu nekk daal maanaam daal suñu xool dafa tooy ba mënuñoo wax lenn daal waaw. li ñu ci def da ànd gaaw moom mairie bi dawaat fi liggéey xam nga parce que moom fii bu buñ ko defee ba normal rek moom mooy loolu daal fii daal ñu ngi fa doon gis suñu bopp bu baax mais SB moom ci laa xaw naa manqué moom franchement ci laa xaw naa manqué.